teew fii di wax ne euh, taxawal euh, àndoon nañ euh, CDD ak docteur Mbaye Guèye CRD ak ki nga xam ne mooy docteur Mbaye Guèye ñu teewaat ci ànd CND teewaat fa ak monsieur le maire biñ teewee tamit engagement yi nga xam ne jëloon na ko yépp mu concerné gàmmu Kaolack yi lépp remplir na ko keroog bañ toogee ca CNDB ministère de l'intérieur nee na dana def don boo xam ne dana ko indi Kaolack dana def soixante-dix ki soixante-dix tonnes ceeb teg ko ci loxo Ousmane Niass mi nga xam ne moo jiite commission religieuse biñ ñëwee ba agsi fii ci xëram yóbbu na ko ba cent tonnes tey jii ñi ngi amee fii cent ceeb boo xam ne lépp ci askan bi la jëm gannaaw loolu def nañ li nga xam ne mooy ay kit yoo xam ne ci 1500 familles la jëm fon euh, euh, gannaaw loolu tamit jàppalant nañ ak Sénélec jël nañ engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ci villages yi nga xam ne ñoo war a jëm Médina loolu engagement yooyu remplir nañ ko remble nañ euh, ki mbedd yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax na bu jàlloo taxaw ci taxawaay boo xam ne ci ci li nga xam ne li ko maire sant yëpp moom la moom la taxawee kon nag engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ñu ëwtu maire ci cérémonie yi nga xam ne moo passé ak ba teewoon engagement yëpp remplir nañ ko di ñaan yàlla ñu gàmmu ci jàmm euh, mi ngi nekk 100 millions li nga xam ne moom lañ dépensé yëpp mi ngi nekk 100 millions am na am na am na am na 100 millions moom lañ dépassé ci pour jàppale nit ñi bugg dugg lañ ci éclairage public beeg lépp ci lañ dugg lépp lu mu laaj rek pour mairie taxawee askan bi def nañ ko assainissement bi dugal nañ ci suñ loxo lépp rek lu lu ñu commission bi sollicité woon engagement yañ jëloon yépp mais remplir na ko ba def lu ëpp loolu su fekkoon ne ñoom ñu ngi doon xaar 50 millions ci ñun def nañ 200 pour cent loolu daal mooy li nga xam ne mooy l'essentiel lépp ngir gàmmu ngi jaar yoon